أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki julit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al an'am ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñetti aaya aaya 133 134 ak 135 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhaanahu wa taala dañ ci jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy taqrir ghina allahi taala al mutlaq an saairi xalqihi mbokki julit yi ñun ñëpp danañ ànd jàng tey saxal gi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala saxal na ko ci boppam doylu gi mu doylu boppam walis mbindeef yi bokk na tey ci ñun li ñu alag mooy dañoo jàpp suñuy jaamu yàlla yàlla lañ ko defal defaluñ ko suñu bopp bari na ci ñun kuy julli da nga yaakaar ne julli gi yàlla nga koy defal kuy woor da nga yaakaar ne yow soo woorul rek bénéfice ba tiyaaba ya du yegg ca yàlla maanaam jàpp ne lépp lu ñuy def lu baax daal yàlla da ciy bénéfice wu sinon buñ ko deful yàlla day perte loolu déggin bu bon la yàlla dafa doy lu wëlis mbindeef yi su waa asamaan yëpp àndoon ak waa suuf di jaamu yàlla ñoom ñëpp ñu baax ba nuroog Seydina Muhammad du yokk ci nguuru yàlla tarfatal ayn du yokk ci yàlla lu toll ne seconde su ñëpp kàccoore woon ba nga dee yées Firawna waa suuf ak waa asamaan du wàññi ci nguuru yàlla gi lu toll ne tarfatal ayn in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen defee lu baax defalu leen ko kenn seen bopp ngeen ko defal kon yàlla dafa soxal ne moom dafa doylu walillahi ala nnaas xijjul bayt man istataa ilayhi sabil wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin yàlla dafa doylu walis mbindeef yépp su ñëpp àndoon di jaamu di rukkoo ak a sujjóot di woor di naafila guddi du yokk yàlla dërëm su ko ñëpp bàyyi du wàññi yàlla dara waaw moo tax léeg-léeg nga dégg ci Sénégal ñu ne li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk loolu moom waxu yéeféer la ndax yàlla moom jaamu gi du ko yokk ñàkk jaamu gi du ko lor su fekkoon ne yàlla buñ ko jaamuwul kon day perte kon daanu na bu fekkoon ne nit ñi buñ jaamul yàlla yàlla wàcc kon daanu na bu yàgg ndax xam ngeen ne nit ñi jaamootuñ yàlla dañuy fo rek kon yàlla daanu na bu yàgg waaye yàlla ay jaamook ay rukook ay sujoot ak ay woor dafa taxul mu nekk yàlla waaw moom daa nekk yàlla ba dara di xew la nekk yàlla te du deñ di ko nekk waaw da koy nekk na mu ko neexee moom yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ku mu neex yàllaay yàlla ku mu naqari yàllaay yàlla waaw kon nag nangul ko ko ak yàlla moom la loolu moo ko saxalal boppam ala saa'iri xalqi mu doylu mbindeef yépp waaw moom yàlla soxlaalul kenn te ñëpp nag ku mu mën a doon nag soxlaal nga mbindeef yi nag waaw ku mu mën doon laaw fii may wax ak yéen seen xel ci ku mu dem rek kooku soxla na mbindeef yi wala gis ngeen benn waay bu soxlaalul mbindeef yi dara wax leen ma kan la loolu lay xaar de amu leen ko waaw mu ngoog benn mbindeef a ngi nii daa am alal mu ne soxlaaluma kenn mën na nekk foog mu soxla maçon wala foog mu soxla menuisier wala foog la mu soxla mécanicien foog la mu foog mu soxla électricien foog mu soxla uude foog mu soxla tailleur foog mu soxla docteur foog mu soxla foog mu soxla foog mu soxla foog mu soxla foog mu soxla foog mu soxla foog mu soxla mu ngoog tey jii ñun ñii rek pour nu nekk ñu bëri ñoo jàpp ci ñun tey pour nu nekk nu bëree ci jàpp pour nu nekk rek pour nu sotti ñu bëree ci jàpp pour tey ngas dox rek sa yëf sotti ñëpp ci jàpp kon nag yàlla du kooku yàlla moom moom la nit ñi soxla mais moom soxlaalul kenn dara moo tax ku xëy rek ne ko as-samad yob lañ jublal mbir yi waaye moom mbiri boppam jubluwu ko ci kenn moom lépp moo koy defal boppam moom yàlla innama amruhu iza arada shay an yaqulu la kun fa yakun allahu akbar yow tey boo soxlaa ah ndax bu ndogu jotee da nga naan kun fa yakun rek nen yi tegu sa kanam boo bëggee neen foog nga téléphoné ne waaye foo nekk mu ne la man de maa ngi nii quoi nga ne waay gaawal nag te dama xaw a xiif waay daal nga pare sama ndogu bi gis nga daa am ko ci jàpp kooku tamit dafa am ñu jàpp de jaaykatu glace bi da cee jàpp jaaykatu mburu bi da cee jàpp sa ndogu bi rek ñu bëree ci jàpp pour nga ndogu yàlla wal inna allaha ganiyun anil alamin yàlla moom dafa su dafa suur këll ñëpp waaw su àdduna bi yëpp àndoon di mars lan lay wàññi yàlla ah su àdduna bi àndoon laa ñëpp di mars jaar ci tali yi dafa am lu muy wàññi yàlla moo tax mu ne yàlla mu ne man lam yarda ala qadaa'i walam yasbir ala balaa'i li may dogal ku mu neexul man yàlla li muy def ku mu neexul li may tegaate ku mu métti génnal sama suuf asamaan bul dox ci sama suuf demal nga jaamu beneen yàlla bu dul man soo meree sa papa da ngay jël sa bagage wala soo meree fi ngay liggéey da ngay jël sa bagage wala soo meree dëkk bi nga dëkk da ngay toxu nekk révisé dem beneen dëkk ñu may la nationalité nga toog foofu wala mereel yàlla foo jëm ban dëkk ngay dem boo amul asamaan amul suuf yàlla nee na boo ma meree bu la sama asamaan tiim bul dox ci sama suuf aja jëlal sa bagage nga dox ñu ne la foo jëm nga ne damaa mere yàlla damay dem beneen dëkk bu yàlla nekkul koo romb dana ndeysaan kii anay mbokkam kii léegi wérut de eh waay ndeysaan kii lu ko dal daje naa ak moom fee ma ne ko foo jëm mu ne daa mere yàlla kon du dem kon yàlla dafa saxal ci boppam ne moom dafa doy lu mbindee fii faalewu leen bu ñu jullee sax faalewu leen bu ñu julliwul it faalewu leen bu ñu wooree faalewu leen bu ñu wooru it faalewu leen du jaamu yi ñoo koy yokk du ñàkk a jaamu yee koy wàcce loolu dafa war a leer suñu bopp jaamu yàlla goo def sa bopp a tax nga def ko waaw ñaareel bayaanu qudratullahi taala ala izhabi alxalq kullihim wa itiyaani bi axarina gayrihim yàlla daf ñuy leeralal tey ne kattan gi mu am moom yàlla doole gi mu am doole su ko neexee mu jële fi ñii bu ko neexee mu indi ñeneen ndax dafa am doole dafa am kattan moom yàlla qudratullah loolu gëm nañ ko wala gëmuñu ko yàlla dafiy jëli ay génération di indi ay génération ndeysaan ana ñoom firawna ana ñoom haman ayna man saadu wa saadu wa banaw ana ñu doon tabax montagne yu ngand yi fekk montagne ñu yott ko ah ana ñu ana ñoom Alexandrie le Grand zil qarnayn ana ñooñu ana firawna ana haman ana ñu génération yi la yàlla di toxal di indi ñeneen ñun ñi léegi ñu dee ñeneen ñëw noonu la yàlla def day jële ay nit indi ñeneen waaw loolu mooy wane ne yàlla dafa am kàttan ku fi yàlla bëgg a jëlee waxal demuma demal nga entraîné ji fu la neex duggal saal bu la neex defal façon aar bu la neex jàngal taekwondo jàngal kënf jàngal karaté jàngal ah viet ba daaw ah très bien booy mbaadu loolu nga ah na leer de jàngal yooyu yëpp su la malaaka bi jël si nga ni ko demuma mu ne nekk mënul nekk xoolal papaay kii léegi mu ne ma maa ngi dem sama benn paa bu ma doon waxtaanal démb démb rek ma ñëw léegi ñu ne ma deena papaay kii mu ngi doon dem fi la toogoon nee na démb mu ngi nee na démb paa boobu mu ngi tooñ kii moo tax li ñu wax sànq ci xutba juma bi da ngeen yaakaar ne ñun ñu woor ñëpp dinañ ko jeexal dañuy tàmbali am na ñu dul yeggal ndeysaan am ñoo am dañuy dem bañ na suba la julli ci guddi gi yàlla neen du ngeen julli de ginaar yi du ngeen ci lekk ginaar yi yomal xiyaam ngeen di añee ji waaye du añ yi jour korité ñii dañuy nekk ci julli ñii nekk ci dëj ñii di ree ñii di jooy allahu akbar waaw moom yàlla ab adhaka wa abka moo reetaan loo ñii jooyloo ñii ndeysaan amaata wa ahya moo dundal ñii rey ñii ndeysaan moo feebarloo moo wérloo moom yàlla borom kattan la kattanam moo ñuy won ne moo fi indi ñu ko neex jële fi ñu ko neex waaw moom yàlla ku mu neex mu judd ku ko neex mu rey la waaw sunu borom jalla jalaaluhu ñetteel mooy sidqu waadullahi taala wa adami taxallufihi sunu borom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu digam dafa dëggu yàlla lu mu wax dinaa ko def rek dina ko def ba mu ne booba léegi doomu aadama di nga judd doomu aadama ngi judd wala judduwul ba mu ne doomu aadama di nga dund mu ngi dund wala dundul ba mu ne doomu aadama di nga dee doomu aadama ngi dee wala deewul ba mu ne doomu aadama di nga wér yaa ngi wér wala wéroo ba mu ne di nga feebar di nga am di nga ñàkk ah voilà mu ngoog kon yàlla la yàlla lu mu wax na am rek mooy am kenn mënul téye kattanu yàlla te yàlla digam gu mu dige kenn mënul fexe ba dig boobu foosé heure juddu heure juddu la heure dee heure dee la la bisu dund bisu dund la bisu dee bisu dee la kenn mënu koo baaree sooy am am la booy ñàkk da ngay xëy ñàkk kenn mënul waaree ñàkk bi ñeenteel mooy tahdidul musrikina bil adab inhum asarru ala shirki wal kufr sunu borom dafa tëkku ñan la tëkku bokkaalekat yi nee na fekk gaa yi ñu ngi nuur ci bokkaale ñu ngi nuur ci weddi yàlla kenn mun ta fexe ba yàlla du leen mbugal mun demee ëllëg àllaaxira moo tax mu wax leen ci aaya ba i'malu ala makanatikum inni aamil fa sawfa taalamuuna man takunu lahu aqibatu ddar addunya innahu la yuflihu zalimun sunu borom nee na liggéey leen i'malu liggéey leen ala makanatikum ci seeni place liggéey leen rek ku nekk fa nga nekk liggéeyal mooy lan mooy jaamul yàlla ku nekk fa nga nekk jaamul yàlla te sellal fa sawfa taalamuun kenn ku nekk di nga xam sa liggéey bisa ngi ñëw danañ la ko fay di ngeen xam ana ëllëg yowmal xiyaam ana ñan ñooy mujjee kërug àllaaxira gi ana ñan ñooy dugg àjjana ana ñan ñooy tàbbi safara waaye sunu borom tëje aaya ba ne innahu laa yuflihu zalimun tooñkat yi duñu duñu texe mukk mukk mukk ci àdduna kuy tooñ doo texe az zulmu laa yaduum isa daama dammar tooñ du sax bu saxee rek alak waaw loo tax ñu naan la laa tazlimanna bul tooñ isa ma kunta muqtadiran loo am doole am doole bul tooñ mais xoolal tey sunu dëkk bi koo fi gis muy tooñ rek daa am doole di fëgg dënn te kat soo demee barab yi nga xam ne fa la ñu war a àttee waa ji nga xam ne moom tooñkat la dafa am ñu ko fa ñu ko fa nekkal naan yow yow yow yow yow xanaa xamoo kii du sa morom yow nga gis kii di wax ak moom li nga ko wax est-ce que xam nga ne waa ji defuloo dara sax yooyu lañ lay may de waa ji tooñ la ba pare di la menacer waxuma dara sax waaye da ngay ànd ak moom ndeysaan fekke woon naa benn policier bu saaga benn waaye waa ji fayu mu poñe ko waa ji poñe ko ñu dem ba biir police ñu taxaw di wax police bi ne daf maa saaga waa ji ne ko yaa ma saaga ma fayu waa police bi ne waa ji amoo droit fayu ne ah amoo droit fayu est-ce que kii am na droit saaga ko moom tamit su kii amee droit saaga kay kii am na droit fayu booy kii bu la saaga amoo droit fayu ah ma ne loi bi moom doy na waar di loi bu permettre saaga nit mais permettre fayu ndeysaan loolu moo lay won ne tey injustice bi nekk ci Sénégal waaw démb dama jël taxi waa ji waroon na fi nekk léegi sax ndax démb mu ngi fi woon ñëw ba Cambérène waa ji seen benn xaritam ndeysaan droite di ko nuyu yéegaat bi muy yéeg taal na oto bi bu muy xëcc ceinture bi rek police bi ne ko vrrr mu daal di droite mu ne ko permis bi mu daal di jël permis bi mu ne ko takkoo ceinture booy bi ne ko mais man bi may yéeg di dugal ceinture bi ak bi nga may siffler benn la man damaa wàccoon gis nga ma may yéegaat mu ne ko booy foog ma foog ma ndogu foog nga jox ma ndogu daxal mu ñëw waaye daal di jël booy bi jël 1000 francs dugal ci biir kalfe kii bi permis bi daal di koy jox mu ne ko jarul sax nga koy dugal ci permis bi indi ko noonu direct rek na ñëw rek wala loolu loolu mooy diine da ngay xëy taxaw ci tali bi yow ñu teg la fi ne nga liggéey ah oto bu ñëw 1000 francs loolu journée bi ñaata la ñaata oto nekk Sénégal léegi nag yow nga dem nag ne woor nag ba ngoon nag nga dem jënd yàpp nag jënd say boisson jënd say puri rek toog di lekk. allahu akbar ne ne da ngaa woor te xaalis jàmbur yi ngay lekk moo tax yonent bi du juum rubba saa'imin wa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atash woor ba ngoon jële woo ci dara dul xiif ak mar mooy loolu kon mbir yi mbir yi dafa sew fokk ñuy yërnd suñu bët ba ci biir ah pour gis la fa nekk ci ay mbir yoo xam ne day yàq jaamu yàlla mu ngoog kon ñeenti aaya yi mbokk yi wala ñetti aaya yi moom la ñuy jël tey mu nekk dars ma bàyyi incha allah ci kattanu yàlla cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi incha allah waaw wa rabbuka wa rabbuka al-ghani zu rahma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت
allahu akbar وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل allahu akbar فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون barakallahu fiik jazakallahu xeyran yal na la yàlla fayal aw yiw mbokk yi sunu boroom subhaanahu wa taala mu ne wa rabbuka sa boroom sunu borom yonent bi eh, sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaataba rabb tabaraka wa taala rasulahu yàlla mu ngi wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonentam qailan yàlla ngi naan ko wa rabbuka alganiyu zurrahma sa borom alganiyu mooy ki doylu ñépp nag an kulli ma siwaahu ku dul moom rek doylu na la waaw jalla jalaaluhu ganiyun moom yàlla moo doylu ñépp ku dul moom boppam fa ginaahu taala zaati laysa bi maktasab doyluk yàlla doyluk boppam la nekkul lu mu lu mu uti déedéet ñun tey lépp loo am da nga koo uti amma yàlla doyloom utiwu ko fenn waaw moo tax mu doylu ñëpp alganiyu huwa allazi la yaxtaaju ila gayri ki doylu mooy ki yaakaarul kenn wala yaakaaroo kenn ñun nag koo fi gis am na kum yaakaar koo fi gis am na kum yaakaar wala gis ngeen kenn fi ku yaakaarul kenn wax leen ma ko waaye wax leen ma ko waay gis ngeen fi kenn laa wax ci dëkk bi ku yaakaarul kenn xam na am na kenn ku naan Macky Sall yaakaarul kenn bis bu nekk mu dem France yalwaani bis bu nekk mu yaakaar yalwaan ONG yi kon am na ñu mu yaakaar kon kan ngeen gis ku yaakaarul kenn sëriñ bi sëriñ bi ah sëriñ bi yaakaar soxnaam sax pour mu toggal ko ndogu mu yaakaar uude bi pour mu defar ko dàll mu yaakaar téyeer bi pour mu ñawal ko yére bi mu yaakaar menuisier bi pour mu ñawal mu defal ko lal bi mu yaakaar maçon bi pour mu tabaxal ko kër gi nga ne ma sëriñ bi waxal keneen wax leen ma ku yaakaarul kenn ah président xanaa yow waxu déggoo saax bi may wax président bis mu nekk ma ni président dem France yalwaani ji dem dëkk naari yalwaani ji yàlla rek moo moo yaakaarul kenn allahu akbar moo tax mu ne moom yàlla ganiyun wa rabbukal ganiy sa borom moo doylu yaakaarul ay menuisier yu koy defaral lal yaakaarul ay maçon yu koy tabaxal asamaan di ko tabaxal kër yaakaarul ay jigéen yu koy toggal lekk yaakaarul ay doom in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahman abda ëllëg yowmal qiyaam ci asamaan ci suuf ku fi nekk di yaataa yimbe sooy dikk ci yàlla ab jaam ngay nekk garaat bi nga gën a takk jaam nga amoo beneen martaba bu dul jaam ak koo xalaat rek buy ñëw ci yàlla jaam lay nekk koo xalaat am nga koy xalaat am nga koy xalaat am nga koy xalaat am nga koy xalaat ñooñu ñëpp ay jaam lañ ci kanamu yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom yàlla yaakaarul kenn wa kullu ganiyin min almaxluqi ginaauhu idaafi gayru xaqiqi koo fi gis ñu ne moom de dafa doylu yaakaarul kenn faalewul kenn du dëgg koo fi gis ñu ne faalewul kenn du dëgg laa wax du dëgg koo fi gis am na koo faale boo faalewul nit ñi doo dund di pour nga dund ñépp ci jàpp maçon yi dañoo ñëw menuisier yi ñëw ah ak ñan tailleur yi ñëw docteur yi ñëw électricien yi ñëw plombier yi ñëw mécanicien yi ñëw ñëpp a ñëw pour sa dund mën a sotti ñu ne faale woo kenn ñëpp ñëw ba pare nag ba nga solu ba pare toog naan gis nga man maa ngi ni faale wu ma kenn du dëgg waaw balaa ngay génn ci nit ñi rek xoolal ñi indi ndox mi pour nga sangu ñi defar toilette bi ki defar saabu bi ki defar njàmpe bi ki defar fi ngay toog pour sangu ki indi ndox mi nga ni faale woo kenn bi nga sangoo ba pare rek balaa ngay lekk ki bay ceeb bi ah ki defar diwlin bi ki nappi woon jën yi nga ni faale woo kenn waaye bañ a faale koo fi gis ñu ne faalewul kenn du dëgg laa wax ku dul yàlla yàlla faalewul kenn dem leen ngeen napp jënu géej yëpp ba mu jeex ngeen yaakaar ne bu yàlla yàkkul day jeex parce que yàlla du lekk faalewul kenn dem leen ngeen taal ab pétrole bi ci àdduna bi yëpp ngeen yaakaar ne yàlla dina ko yëg du yëg te loolu ngeen di def yëpp yàlla moo leen ko indil te moom li mu ci yor du jeex kan moo nekk sénégalais fii ci biir jàkka ji kuy sénégalais ah yow ni yow sénégalais nga ak yow ok boobu ba léegi yéen sénégalais yéen a ngi lekk jën de ah jën ndax jën wi jeex na du jeex ndax yàllaa ko yore yéen a ngi lekk yàpp xar ah ndax xar jeex na xool leen xar niñ koy niñ koy rendee jouru tabaski allahu akbar ah su tabaski ñëwaatee xaar dina am wala du am parce que yàllaa ko yor du jeex xoolal ngelaw li nuy noyyi ñaata nit ñooy ñooy ñooy noyyi par jour damay laaj ba- Sénégal boog ñaata nit ñoo fi noyyi tem ñu ne la 14 millions dañuy wax 14 millions rek mais ëpp na ko de bi ñuy wàññi 14 millions boobu am na ñu nekk ci maternité yi di jur te ñooñu kenn rec- recruté gu leen ñaata lañ ñaata maternité ñoo nekk Sénégal bi gars yi naan 14 millions boo am na ñu nekk ci maternité yi di jur waaw allahu akbar te ci 14 millions yi am na ñu dee kon kay matatul 14 millions allahu akbar yàlla xaniyun anil alamin soxlawul kenn keneen koo fi dégg ñu naan soxlawul kenn dañ koy tuumaan rek du dëgg dañ koy jay moom pour mbiram sotti ñëpp ci jàpp amma ghina allah taala fa huwa haqiqiyun fa qawluhu fa rabbuka alghani al alghaniyu almutlaq allazi la yusharikuhu fihi ghayru yàlla moom doyloom kenn du ci bokk moom kenn kott la waaw waa ji ñaan dafa doylu am na jabar ah kon doyluwul am na doom doyluwul am na yaay moom ci boppam am na papa kon doyluwul yàlla nag amul yooyu yëpp moo tax mu doylu xani yi soxlawul baay bu ko défendre bu ko encadrer soxlawul yaay bu ko boot ak bu ko nàmpal soxlawul soxna bu nekk ci kotam ci wetam bu wàccee mu ne ko ay nijaay xaaral ma bësala say tànk soxlawul doom pour di ko yónni dawal nga ñëw gaawal wala boo màggatee mu lay dimbali papa jàppal ci li bokk korite gaa ngi waaj a ñëw dadal ma fa ñeenti ginaar yàlla soxlawul lool moo tax ak doyloom nekk xaqiqi mutlaq muy lu lu lu mu boyal lu wér këng ñëpp teg ci bët ma ne yii ma wax nii xam ngeen ne yàlla amu ko te it soxlawu ko ñun nag ñun ñëpp am nañ ko moo tax doyluwuñu ñun moo tax koo fi gis ñu naan moo kii faalewul kenn kii yëgul nit ñi kii nangam nangam du dëgg dañ koy tuumaal rek yenn saa yi sax ñu naan faalewul kenn te mu ngi ak chauffeur waaw mu ngi ak chauffeur moo koy dawalal ñu ne faalewul kenn kon kay am na ku mu faale chauffeur bi nag allahu akbar wa rabbuka sa boroom ki la moom baatu rabb li muy tekki mooy ki la sàkk moom la yar la di la jox nga lekk di la jox nga naan di la màggal te doo ko yëg di la dundal di la rey kooku mooy rabb moo la yar bi ni'maahi ci ay xéewalam allahu akbar alxaniyu mooy ku doylu zur rahma waaye mooy borom yërmande gi allahu akbar yërmande goo xam ne sunu borom subhanahu wa taala foog ko natt wees na ko saahibu rahmal amma yàlla moo yor yërmande gu yaatu gi yërmande gi ñëpp la ci dugal amma allati tasmulu saairul maxluqaat mbooleem mbindeef yi dafa ëmb yërmande boobu ñu bëri boo nee yërmande yaakaar ne doomu aadama kese la déedéet soo demee ci biir géej gi ña fay dund ci yërmande yàlla la ñuy dund lii dund géej xam ngeen ko ah damay laajte ndax lii dund géej xam ngeen ko lii dund ci géej gi ak lii dund ci jéeri ji lu ëpp lii dund ci géej gi ëpp xoolal loolu yëpp ci yërmande yàlla la ñuy dundee lii dund nekk njanaaw di naaw ci kaw xam ngeen ñaata la ñoo ñëpp ci yërmande yàlla la ñuy dund lii dund nekk xasaraat nekk ay gunóor ak ay sax xam ngeen ñaata la ñooñu ñëpp yàllaa leen di jox ñu lekk yàllaa leen di jox ñu naan xoolal waa géej gi yàllaa leen di jox ñu lekk ñuy naan njanaaw yi yàllaa leen di jox ñu lekk ñu naan ak rabu àll yi léeg-léeg ñu génnee la benn ñay boo xam ne ci àll bi wala ñu génnee la gaynde goo xam ne te gaynde lu muy lekk yàpp xam ngeen gaynde du lekk ñax te gaynde gi am na 40 ans te bis bu nekk dana lekk yàpp bu tooy bu bees taq te du ko jënd allahu akbar zur rahma sunu borom moo yor yërmande gi yërmande goo xam ne dafa matale ñépp mu doog a ñëw ci doomu aadama yi nag yërmande googu moo tax nit ñi dañuy jàpp ne suñ ne yàlla borom yërmande la ñu yaakaar ne yërmande googu salaamaaleykum gëj nañ gise maa ngi lay ziar maa ngi ziar bu yaa baax ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax alhamdulilah gëj nañ gise de est-ce que yéen a- ay at wallaay dama xalaat ndeysaan man maa ko ne woon fii dëgg la daa yaa fi yow daaw tafsir waaw at mu jot dama fi ñëw leen wallaahi yàlla wane la waat nañu ren borom kër gi sama wala waaw ñaan ñaan ko mu wane la waat ñu jërëjëf daañu mën a leer incha allah toogal waaw toogal léegi ñu pare incha allah est-ce que jërëjëf jë salaamaaleykum jazakumullah xeer jazakumullah xeer mbokk yi sunu borom mooy zur rahma mooy borom yërmande gu yaatu foo natt yërmande googu yàlla wees na ko allahu akbar te yàlla yërmande moo moo jiitu meram waaw moo tax doomu aadama yi bu ñu xamoon yërmande yàlla yenn saa yi sax danañu danañu euh, ëppal ba bañ a jaamu yàlla ndax yaakaar yërmandeem waaw ñaari nit dañoo faatu seen ruu timsaal ci kanamu yàlla yàlla mu ne wenn waa ji demal safara rek waa ji jóg ne bërët tërërëri yàlla ne ko malaaka yi téye leen ko ñu téye ko yàlla ne ko yow bi nga nekkee ci àdduna dama laa waxoon defal nga bañ tey nga ñëw man la demal rek nga dem lu tax mu ne yàlla damay bañ li ma daloon dalaat ma comme damaa wowle woon ci àdduna ba lii daal maa dal tey moo tax bi ma nee demal rek ma jubal yàlla mu ne ko demal aljanna keneen ki nag ñu ne ko demal mu ne demuma de ñu ne ko ya yow da ngaa wowle woon ci àdduna wowle waat léegi bi nga nekkee ci àdduna dañ la mën jaamul nga lànk nga ñëwaat fii ci àdduna ñu ne la demal safara nga toog di xaar mu ne waaw damay xaar ndax yàlla moo ne yërmandeem moo jiitu lépp yërmande googu laay xaar fii ay nit a ngi biir safara di tudd tur yàlla naan yaa xannaanu yaa mannaan yaa xannaanu yaa mannaan ndeysaan yàlla mu ne jibril moo ko gën a xam de moom yàlla mu ne jibril ñooñu di wax sama tur bi fu ñu nekk jibril mu ne ko yàlla ñooñu ñoo ngi safara de mu ne ko demal nga génne leen jibril mu ne yàlla ñooñu ba ma demee ci seen registre seeni jëf fekkuma fa lu baax amuñu sax toq lu baax kon yàlla ñooñu nu ñuy génnee yàlla mu ne waaye jibril man sama tur bi gémmiñ gu koy wax du nekk safara génne leen foog nga génne leen ñooñu noonu lañ génnee kon yàlla bari na yërmande de benn waaye moom dafa jaamul woon yàlla nekk fetteerlu lànk ba mu waajatee mu woo doom yi ne leen kaay leen ñu ñëw mu ne man ban bàyyi laa ci yéen ñu ne bàyyi ju baax mosu ñoo xiif mosu ñoo mar mosu ñoo rafle lu ñu bëgg rek yaa ngi ci mu ne léegi nag dama leen di sant dara su ma dee ñu ne waaw mu ne da ngeen may lakk ba ma nekk doomu taal ñu ne waaw mu ne ngeen diviser ko deux ngeen jël benn bi ngeen def ko ci paan ngeen dem ci géej gi ngeen yëngal ko mu seey beneen bi am ñu jaar nii dem ba ci montagne bi sànni ko mu daal di naaw ñu ne ko papa lu ko waral mu ne damaa ragal yàlla bëgguma dajeek moom ñemewuma ko ñemewuma yàlla de ndax lim ma santoon nekkuma ci moo tax ñemewuma dajeek moom kon nag lakk leen ma rek ma seey nekk doomu taal nekk ngelaw naaw yàlla bañ maa fay mu dee gaa yi dajale ay mat lakk ko ba mu nekk doomu taal ñu diviser ko ñaari paan benn paan bi xale yi diviser wu dem géej sotti ko ci ndox mi yëngal beneen paan bi ñenn ñi yëg ci montagne bi xëpp ko mu daal di naaw yàlla daal dajale ñaar yëpp ne ko kun fa yakun waa ji taxaw ci kanamu yàlla. yàlla ne ko looy daw lu xew ba ngay lakk sa bopp. di ko sotti ci géej gi ak di ko def ngelaw muy naaw lu xew mu ne ko yàlla ñemewu ma la dama laa ragal yàlla mu ne ko nag ma ragal mu ne waaw yàlla mu ne ko baal naa la demal nga dugg aljanna kon yàlla dafa bëri yërmande mbokk yi benn waay dekki na fekk registre am registre bi dafa gudd ba fu bët bi yem fa la registre bi yem yépp ay bakkaar la lépp tout registre bi dafa gudd ba bët bi fu mu yem fa la këyit gi tàmbalee fa la tàmbalee ñu xool ko gisuñ ci benn tiyaaba yàlla ne ko loo xam ci li mu ne ah man ngay wax dëgg yàlla xaw ma ci dara lii de yaa ko def mu ne xam naa ne maa ko def yàlla ne ko léegi nag luy sa mbir mu ne ah man kay léegi aw ma dara yàlla ne ko waaye am nga le am naa lenn lu ma la dencaloon bi nga nekkee ci àdduna am na lenn loo waxoon ma dencal la ko xaaral ñu jël loolu ñu peese ko ak sa registre bi ñu xool ndeke waa ji musoon naa wax laa ilaha illa allah ñu daal di jël baat boobu daal di jël registre bi peese ko laa ilaha illa allah daal di daaneel registre bi ñu ne waa ji demal nga dugg aljanna ki mujjee dugg aljanna bi mu duggee malaaka bi di ko yóbbu dafa jékki-jékki rek malaaka bi ne ko li sa kër la mu ne allahu akbar daal di sujjóot yàlla mu ne malaaka bi laajal waa ji lan la malaaka bi mu ne waa ji yow lan la mu ne kër gi dafa rëy yàlla ne ko ne ko dubleel naa ko bu tol noonu te ki gën a tuuti aljanna kër këram mu ngi tol ne àdduna ki gën a tuuti laa wax de kër aljanna këram a ngi tol ne àdduna moo fa gën a tuuti te bi mu jommee ne allahu akbar yàlla ne ko tegal naa la bu mel noonu kon ki gën a rëy kër këram nu mu toll fii da ngay gis benn waay bu am kii rek waa ñu naan waa ji si gis ngeen waa ji kër gi mu am ah kër gi boo fa duggee lépp a nga fi ah ndeysaan fii de xanaa ki gën a ki gën a ngand kër kërum tollu ne Sénégal xanaa ki gën a ngand kër ci àddina bi xanaa këram tollu ne Sénégal de wala moo tax doomu aadama yi amuñu yàllaa am moo tax yàlla yenn saa nga ne ñu ne diw mooy ngand mi déedéet yàllaay ngand mi moo tax lépp a ma ngand ki gën a tuuti kër ki mujjee dugg àjjana këram a ngi toll ne àdduna te ba mu yéemee yàlla def ko ne may naa la beneen bu toll noonu waaw te loolu xel sax warul sikki sàkk ne yàlla am na lu ëpp loolu étoile yi ngeen jàng ci kaw asamaan yi ñaata étoile la xam ngeen ko ah étoile yeeg suuf si lu ëpp ah étoile yi kon kay yàlla bu leen ne am naa lu ëpp loolu ngeen gëm ko allahu akbar ñaata étoile ñoo ne ci kaw mu ku ko mën a compter kan la ñu yónni ko mu dem compter ñu ko ñëwaat boobu ba léegi de déggoo ñu naan ñaata la da ngay dégg rek ñu ne ay étoile nga fa wala allahu akbar te étoile yi ci nekk da ngeen defe ne étoile yi dañoo dañoo dañuy rakk-rakk noonu dañuy dund di déplacé wu te yenn yi vitesse yi muy daw kenn mënu ko contrôler te amul nit ku fa toog di bës ay bouton ak di bës baar beeg naan nii te oto yi di daw ci adduna bi dafa am ñu koy avion yi bato yi ah étoile yi nag kan la yàlla mu ne wa kullun fii falakin yasbahuun benn bu nekk mu ngi ci planète am di féey di waaw ay espace yoo xam ne allahu akbar jallat qudratullah moo tax yàlla bu ñu nee borom kàttan la nit waru cee sikki sàkk te loolu tey suñ koy wax xam ngeen ne loolu kàttan yiñ ciy wax sax am na lu ko jiitu mooy xam-xam bi ko defar ki defar lii rek tey jaaxal na nit ñi wala ki defar oto nag jaaxal na nit ñi ki defar avion jaaxal na nit ñi ki defar lan bato jaaxal na nit ñi ki defar lan wax leen jaaxal na nit ñi ki defar lan train jaaxal na nit ñi ki defar asamaan nag jaaxalul kenn eh, asamaan lii isa sax ku dëgër fit daane lii mun naa ko defar allahu akbar ndax dëgër fit waaw waaw waaw billaahi wallaahi Sénégal boo fi bàyyiwul di laaj question yi yenn question ay ku mun defar asamaan ak ku moom suuf léegi nga dégg ku la ne diw billaahi laa la wax ku bàyyul di laaj yooyu wala kan mooy borom jaam yi léegi ñu ne la diw waa ji da koy wax ba pare taxaw fee naan la waaw moom la lan la léegi nag lan la allahu akbar ah laay Sénégal Sénégal jar nañoo yërëm jar nañoo ñaanal jar nañoo ñeewant ndax li yàlla wax ak li yàlla bëgg ak li yàlla santaane ak fam ñu jaarloo fële lañ nekk ba pare boole ci am fit goo xam ne boole ci ñeme goo xam ne la hawla wala quwwata illa billah iblis sax ñoo ko gën a ñeme sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom mooy zur rahma mooy borom yërmande gu matale gi yërmande goo xam ne dafa ëmb mboole mbindeef yi wa xaasa nag bil muminina min ibadihi ndeysaan rawatina nag mboole mbindeef yi moom daf leen mataleel yërmande gi waaye dafa am ñum ci jagleel nag e benn parti boo xam ne moom ñii moom ñoom rek ñoom moom loolu moo tax ñu naan rahmanu dunya rahimul axira rahmanu dunya ñëpp a ko bokk rahimul axira jullit rek lay yërëm alaxira kuy jullit rek yaa ngi dugg ci rahim kon yërmande gaangoog sunu borom subhanahu wa taala def ko mu ne in yasha moom yàlla bu ko soobee yusibukum mu jële leen fi waaw waaw yàlla bu ko neexee yéen ñëpp mu jëlee leen fi te bu leen fi jëlee du tàggu kenn ah du fi du tàggu kenn jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ndax yaakaar ngeen ne ci àddina bi am na kuy juddu yàlla ne diw day juddu tey dàggoo kan la boo ne woon Sénégal kan la ñu ne la diw moom sax bi muy dugg da- bi muy juddu dafa sol yére daa di yor benn lettre bi ñu ubbee lettre bi ñu gis turam tur bi nag du ma ko wax ndax bu ma waxee tur bi ngeen xam kan la waaw noonu laa koy bàyyee bu ngeen jógee ngeen gëstu jikko fan ngeen gis a gisee ku judd ko sol yére ci ban biir moo ko ëmb ah yonent yàlla Ibrahima sax bu muy judd solul yére aad Ibrahim Moussa yonent yàlla Muhammad ni doomu aadama yi juddoo lañ juddoo yàlla moom bi muy sàkk nit tàgguwul kenn su koy rey du tàggu kenn su ko fiy jële kenn mënu ci dërëm waaw loolu gaa yi naan diw moo sone malakal mawti bët bi toj ruu yëpp daal di dekkiwaat loolu ay sóob la de xam ngeen ne malakal mawti kan moo ko ñemee sone moo tax arab yi dañuy wax ne ida kunta kazuban fa kun zakuran booy fen del fàttaliku fekkee da ngay fen chaque jour del fàttaliku fen yi ngay fen balaa ngay fen fen boo xamante ne kenn dootu ko mun a dajji loolu mooy lan naka la ñuy waxee diw moo sone malakal mawti bët bi toj te moom malakal mawti ñëw rey ko mu dee te taalibe bi la doon sauvé kon moom taalibe ko ëpp martaba xanaa li wóor kay mooy yow sax boog xanaa yaay défendre sa bopp waaye nga défendre sa taalibe yow ñu daaneel la mooy loolu moo la wan ne du dëgg moo tax am na wax yoo xam ne dañ koy wax ci réew mi rek mais dara du ci dëgg yàlla subhanahu wa taala moom moom jaam ñi day coobarewu ci ñoom nu mu ko neexee bi mu leen di sàkk ñun ñi nekk ci jàkka ji bi ñuy juddu kan la yàlla tàggu ne dañuy juddu bi ñu sunuy way jur ëmbee kan la yàlla tàggu bi juddu jotee kan la yàlla tàggu bi ngay màgg ko yàlla tàggu waaw kon nag bu lay rey du tàggu kenn da ngay xëy rek ñu ne diw dee na ndeysaan waa ji nee na séeréer bi dafa ànd ak jabar ji dem ziyaara ji sëriñ bi présenté ko ñu xamante mu jox ko alal bu bari ci dugubam lu am bayoon ci tooleeg lépp mu dem ñibbi ñu toog ñetti at ñeenti at séeréer bi daal di ñëwaat moom kenn cundung nuy sëriñ bi na nga def maa ngi fi waa ana soxna sax mu ne ko ya koo ma laaj mu ne ko ah soxna si ma présenté woon sa soxna sa mu ne kon yow yëgoo ne dee na man ma yaakaaroon naa ne ba mu dee dugal nga ko àjjana bu yàgg mu ñëw sax doon wax ban àjjana nga ko dugal nga naan ma anamu la ma la joxoon teg ko fii dëkk yow mënoo dara war na dëgg waaw mu ñëw ne ko ana soxna si mu ne iya kon yow yëgoo ne dee na yow yow nga yow yaa ne woon ah ah, ndeysaan wallaay wax na dëgg wax ji sori la wax ji rëy la koo fi yaakaar boo dee sax du ko yëg xanaa ñu xëy na ko diw dee na mu ne ay waay loolu kañ la xanaa dafa feebaroon ñu ne ko déedéet moom de wax dëgg yàlla dara sax dalu ko xanaa bopp bee doon metti rek mu daal di tëdd rek daal di dee ah léegi nag ñu ne ko ah comme yow yaa doon sëriñ bi yow la ñuy xaar waaw mu jaagar jaagar yi ñëw nag man yaakaaraan ne bu ñuy xaar nit bu ñëwee da koy dugal aj day ñëwee da koy dekkil gars yi dañuy yenn toog di ko xaar de mu ñëw dara la ci mënul day ñëw rek ñu ne ko mu ngi ci morgue bi sama benn papa dafa gaañu am benn xaritam nag bëgg maa woon ne yow sa papa sama xarit la mu ñëw fekk ma ma taxaw ci buntu morgue bi rek mu daw tërërërërërër yegsi anamu anamu anamu anamu ma ne ko mu ngi ci morgue bi mu ne ma gis ko mu ubbi morgue bi rek mu ne bàyyi ko daal yow la ginnaaw ma ne waaw may sa daw ya fii nga tourné sa sóob yu metti yi gars yi dañuy sóob rek wallaay dara nga ci mënul boo ñëwee di bu ñu ubbee morgue nga dugg loo ji man da nga koy yëkkati mu jóg ne ko nañ ñibbi da ngay tiim rek jooy jooylu wala nga jëm a ñaan ñaanlu ay taf ci kii bi dara yàlla ne la da ngay sóob rek kii xam nga ne mënuloo ko dërëm du jóg waaye jàllal ni waay ay sóob kese la kon ku yeba jaamu yàlla gars yi dañuy naax rek tus lañ mënul tukulóor yi nee nañ so tawi dudd korkor na waayu hunde yow tuute réedu mum onon onon nganndi dudd korkor so tawi wonko waawi yo tuute reedu mum boo mu ne dara defalal sa bopp waaye de dañuy nax rek bu diw ñëwee keroog ba waa ji deewee diwa ñëw moo lii gis ngeen asamaan si dafa commencé di bleu ngelaw li sedd nu nu nu nu nu parararara tërërërëre yàlla ne dara da ngeen di sóob bu ngeen mu ne dara daal na waa ji ñibbi këram loolu kese la ay asamaan daa bula ak daa verte yo doomu yonente bi dafa faatu bu tudd Ibrahim asamaan si xiin sahaaba yi ne allahu akbar ah li mooy wane ne du yonente bi sax tey asamaan mer na ci deewu doomam ji xool asamaan bi nu mel yonente bi dégg ko mu denc Ibrahima ba pare mu taxaw nag ñu leen kaay leen ma wax leen gis ngeen asamaan si deewu kenn du ko du ko bulaal ak du ko vertal ak du ko zonal su ngeen gisee lu mel noonu dellu leen ci yàlla xam ne yàlla moo ko def waaye du deew kenn boo deewee asamaan bi jant bi day xëy fenk soo nit ñi jaagaar jaagaari oto yi di daw avion yi di naaw ngelaw li di dem montre bi nga takkoon dañ koy tekki keneen takk ko yaay taxawaay montre bi day dox dara du xew da ngay dee jant bi fenk soo nit ñi añ reer ndékki ñu jagar jagar yi la suuli del delsiwaat naan yëkk nañ añ yi gaaw leen waay nit ñi dañoo xiif lu xew yow yaa perte yow mi jaamul woon yàlla yàlla moom moom nit ñi su ko neexee ni mu leen fi indee in yasa bu ko soobee moom yàlla day cooba rew yusibukum mu jële leen fi wa yastaxlif min baadikum ma yasa mu indi ñeneen ñu ko neex seen ginnaaw ñoom aba jahlin waa quraysh ñoom umayya ñoom walid ibnu mughira ñoom uttuba bañ fi nekkee di féttéerlu lànk ne duñ jaamu yàlla yàlla da leen fay jële indi fi sahaaba yi sahaaba yi yàlla jële leen fi indi taabiin taabiin yàlla jële leen fi indi taabi taabiin ñooñu yàlla jële leen fi yàlla indi ñu indi fi sunuy baay ak sunuy maam yàlla jële leen fi bàyyi fi sunuy baay léegi ñu ëpp sunuy baay yàlla jëlale leen fi ñun ñoo fi des genn minute yàlla jële ñu fi fii nii bis day ñëw de du ngeen ma fekk may tafsir de wala loolu ngeen foog yéen ñi bis day ñëw du ngeen ñëw tafsir bu yeboo ñu xam ne dëgg gi mooy dëgg bis day ñëw fii du ngeen ma fekk wallahi al azim bis a ngi ñëw man it ma toog fii di leen xaar du ngeen ñëw ma buub sama téere ñibbi loolu la yàlla binde àdduna suñu comprendre réalité boobu rek ñun ñëpp dañuy noppalu kon ñu xam ne jaagar jaagari geeg daw beeg kursu geeg def yi nga war ta def ak doo ko fi def ndax yàgg-yàgg da ngay dee bàyyi ko fi na am kër après nga dee bàyyi fi kër gi naa takk ay jabar après nga dee bàyyi fi jabar yi naa ut ay oto après nga dee bàyyi fi oto yi naa am ay doom après nga dee bàyyi fi doom yi naa ut alal après nga dee bàyyi fi alal ji kon ban njëriñ la li nga doon ut comme yàgg-yàgg da nga ko fi bàyyi doo ci dara du la topp dara benn waaye nee na ci li mbay bi mu génnee àdduna dañoo jox doomam 10 000 mu dem indiwaat weccit liñ koy yóbbi àllaaxira yëpp 10 000 lañ ko jox mu indiwaat weccit ci ko amoon jet privé ah yor ay sato yor ay asalam yor ay palais allahu akbar kon li yàlla wax mooy dëgg yàlla in yasa bu ko neexee yuzhibukum mu jële leen fi te yàlla bu leen fi jëlee nag asamaan bi du débordé de dara du xew yenn saa yi nga dégg diw dee na gaa yi ñëw waay ah ah ah ne teg ah doo continuer gaa yi ne la noppil noppil noppil noppil noppil noppil noppil nga daal di noppi yaa waroon continuer kay ba jàng ñu seet lan la ndax waa ji day ñëwaat ay sóob la rek ñëwaat waaw ñëwaat ñëwaat du ñëwaat kenn nga dégg dee gaa gaa yi bërëngu ñu ne xarit bi xaritam la bàyyi leen ko waa ji bërëngu mbëkk ay fenêtre dóor fële kërëj kërëj ñu daal koy téye mu ne yem yàlla ne ko yemal kepp malaaka yi ne ko yemal kepp da ngay yem rek yàgg yàgg da ngay yem yemal rek mu daal di yem gis nga ñaata yoon ngeen ko gis waaw am na ci ñoo xam ne dañuy rew rew la rek dañuy jóge fële dégg diw dee na depuis guddi ñu yeewu ndekki ba suur sangu ba set toilette jóge dëkk de dugg oto ne pat di waxtaan ba mu neex leen yegg si rek gis baas bi rek mbërëngu ah ah ah ñu ne indi leen soow dafa daanu indi leen ko soow def ci suukar nag def ci glace ba mu neex loolu kay kuñ ko jox mu noppi ah boo ko jox mu ne muñ koo ko jox mu noppi mu noppi noppi lay def day dal ne teg waaw ñu naana ko nag nga def ñu naan naanal leen ko ko nga gis waa ji mu day day bañ nag xam nga bu téye pot bi day ñàng danaan nii nag waaye lu bu ñu dugalee lu tax du ko génne loolu lay wax ji yow kay yaa moo tax sénégalais gars yi dañuy sóob rek gëmuñ dërëm dañ leen di nax ñu teg pot bi di la ko sol muy dem ah dañ ñuy nax wala mas ngeen gis jox leen ko soow rek ñu jox la soow nga di teg lu tax waxul jox- waxul nañ ko jox leneen ah waaw Gloria Gloria kay kuñ ko jox pot bi bënn leen ko buñ ko joxee nga noppi ah dañ wax dëgg rek benn ndox bu dee bu duggee ah benn ndox lu tax waaj moom kay dëgg-dëgg sax bu fekkoon ne dëgg dëgg dëgg affaire bi dëgg la kon danaan ko bërëb da koy génne waaye boo ko joxee ma ah affaire yi di dugg waaw yow ma ne affaire yi ay caaxaan kese la dañuy dañuy nax rek ku yabu topp yàlla billaahi ku topp yàlla perte nga si affaire yëpp dañuy wanewu rek di ngis talu dara du ci dëgg sunu borom nee na wa yastaxlif dana leen remplacer min baadikum seen ginnaaw maa yacha la ko soob ñi ko soob mu indi leen waaw ana sunu maam yi ana Cheikh Ahmad Bamba ana El Hadj Malick ana El Hadj Omar Foutiou ana Cheikh al Islam ana ñeneen ñi ana ñu ñoom ñëpp dem nañ ana Cheikh Abdoul Ahad ana Abdoul Aziz Zignon Dabakh ana mu ah ana Serigne Babacar dem nañ ana Sëñ Fallou dem nañ gis nga tey ñun ñoo fi nekk ñun tam dañ fi jóge suba ñeneen ñëw daat fii toog te ñooñu ñoo soob yàlla mu ne kama ansaakum comme ni mu leen sosee min zurriyati qawmin axarin mu jële leen ci beneen njaboot ci yeneen nit ñoo xamante ne ñooy njabootu ñeneen ñu sosu ci kama ansaakum na mu leen sosee min zurriyati qawmin ngeen nekk njaboot ay xawma xawmin ay nit aaxarina yeneen ndeysaan da ngay dëkk koñ walla la laay wax sama koñ paa yi maa ngi ñoom ñoo fi ñëwandoo 68 am naa sama benn papa bu tuddoon Mamadou Thiam ndeysaan boobu sunna melagul nii dama daan xëy ànd ak moom julli ji fajar jàkk maa ngi moom rek koñ bi ñooy dem fajar jàkk mu jàpp sama loxo ndeysaan bu ñu ñëwee julli ba pare mu daal di jàppaat sama loxo ñu ñëw toog ci buntu kër gi mu ne nii ma toog di ko xool mu jékki-jékki ne ma lii ma ne ko pap mu ne ma ana borom kër gi ma ne ko aatuñan mu ne waaw ma ne ko pap kooku gaañu na mu ne kii nag ma ne ko pap ngaari wan mu ne waaw ma ne ko pap kooku gaañu na mu ne ma kii nag ma ne ko pap aaru na caam gaañu na mu ne kële nag ma ne ko pap du sañaan mu ne waaw ma ne ko pap yow xanaa da ngay fàtte mu ne fàttewu ma de dama lay laaj rek ma ne ko pap kooku gaañu na mu ne ma kii nag ma ne ko pap kooku gaañu na mu ne teg ba caag mu ne maa ci topp wallahi wallahi noonu mu ko waxee woon noonu la amee moo ci topp dem na waaye man mi ñu ko doon wax man it maa ciy topp suñu benn bilaal ndeysaan dafa yor benn photo ñetti imaam yi nekk ci moom moo leen ñeenteel ñu daje benn ngénte bàyyi góor a mu ne ma oustaz kii kan la ma ne ko kii imaam wele la mu ne ma anam ma ne ko ah bay góor a gaañu ne mu ne ma kii nag ma ne ko imaam Sarr mu ne ma kii nag ma ne ko imaam Mbeng mu ne ma anañu ma ne ko dem nañ mu ne du man maa taxaw ni ma naan mu ne maa ciy tegu anamu moom it dem na wallaay noonu la mbokk adduna adduna noonu la ñu ñëpp dañuy dem ñu demee rek yeneen njaboot ñëw da ngay dëkk ci koñ koñ bi fi nga màggee man léegi suñu koñ xamatuma fa kenn booy yi fa nekk nii xamoo kenn ndax ña fa nekkoon ñëpp dee nañ ñu jaay seen kër yi ñeneen ñëw dëkk ci kër yi ña fa nekk ñu bees lañ man xaw ma kenn xale yu ndaw yi nag ñi zaar yi ñii xaw ma kenn ak yenn génération yi xaw ma sax luñ tudd koñ bi dafay beesaat ci yow ñeneen nga fay gisaat ñooy sosaat kër su ko defee bu xale yooyu màggee dafa ne ñoom seeni baay ñoo sanc fii fekk déedéet fii biñ fi ñëw ndraan yi ñoo ko doon maasale ndraan yi guddi rëtëtëtët di maasale fii jaan yeeg bari yeeg till yeeg bukki yi fii boo tëddee guddi dégg bukki yi di yuux ndraan yi ñoo ko doon maasale bu ñu maasalee ba mu kii nit ñi ñëw dëkk voilà gis ngeen tey su ngeen génnee fii ñu ne la nga ne oustaz moo mun a fen wala lii mu naan ay ndraan ñoo ko doon maasale waaye ñun ñu judd fekk fii lii fekk déedéet wallaay ay ndraan ñoo ko doon maasale dem leen ngeen laaj paay waaw mu nga gis ngeen àdduna noonu la àddina noonu la mbokk yi lépp ci loxo yàlla la nekk yàlla koy contrôler lu ko neex nu mu ko neexee fu mu ko neexee ci ay doxalin ci mënam ci kattanam moom yàlla noonu la koy dogalee waaw nit ñi di judd rek di dee ah mu waaw mu nga wallaay wallaay azim bi ñuy bi ñuy bi ñuy ñëw fii di julli am na imam boo xam ne maa ngi moom ñoo fi nekkoon su ma jiitee benn vendredi mu jiite bu ma jiitee benn julli mu jiite su ma defee dars mu def dars ana mu tey dem na dem na kon noonu mooy àdduna ñii dañuy dem rek ñii di ñëw sunu borom nee na innama tuadun laat ndeysaan li ma leen wax day ñëw de gis ngeen ay yaa ngi mooy li mooy texte sans commentaire wala du loolu ngeen tim seen téere yi innama tuaduna li ma leen dig la ma leen dencal laatin day ñëw kenn mënu ko téye innama waada allahu taala bii mu ngoog innama waada allahu taala bii li yàlla dige ibadahu jaam ñi min naim aw jahim laat la mahaala safara day ñëw àjjana day ñëw mbokk maa ngi may fàttali mu ne aaya bi ni ko yàlla waxee nee na dafa ànd ak ngiñ ànd ak nuun goo xam ne dafay feddali mbir yi innama tuaduuna inna adaatu lan la ah di digëral li yàlla ne li ma leen dig la aat waaw yàlla bu ne li ma wax day ñëw li ma wax man yàlla day ñëw ku jaamu day dem àjjana ku jaamul day dem safara ay nit ay nit bëgg laa gëmloo ne yàlla li muy wax day naxaati te yàlla wax la texte bu leer innama tuaduna la aat li ma leen wax day ñëw keneen na la garaawul dinañ ko lijjanti yow topp ñu rek topp ñu rek waaw topp ñu rek lu ñu la wax defal rek defal benn waaye nee na ma sëriñam dafa ñëw ci dëkk bi ñëpp di nëbbatu ma ne ko lu xew mu ne ma dafa defar lu café bi mu ñëwee ku ko ziar si mu ne la naanal te nit ñi dañoo woor te nit ñi dañoo bëgg a woor te moom ku ko ku ku fa dem doo woor day dogloo nit ñi mu dugg ci dëkk bi dëkk bi yëpp di daw di nëbbatu ji ma ne ko ban dëkk la mu wax ma turu dëkk bi waaw ndeysaan xoolal lool rek ab kilifa diine buñ ne kilifa diine la nga ñëw ci dëkk fekk dëkk bi dañoo woor nga ni defar leen ci nu café bi ku ñëw nuyu si la rek nga ni tànqal leen ko kopp mu naan fi kenn du fi woor allahu akbar wala dëgg fit bi ak ñeme yàlla gi waaw ñun ku ànd ak ñun du woor benn xale bu góor nee na ma sama papa dafa gaañu maak sama mag ñu ànd ziyaare ji suñu sëriñ ñu yegg si mu ne da ngeen a woor ñu ne waaw mu ne lekk leen mu ne sama mag daal di dog man doguma ba tey ñu wax ma lu nekk ma ne pat rek mu ne sama mag daal di dog mu ne boobu ba léegi sama mag du woor man rek maay woor ku yeba jàpp ci woor de julli ku yeba jàpp ci koor ku yebe jàpp ci soo amee dem màkk ku yeba jàpp ci gis nga caaxaan yi ñuy wax ay màkk jarta dem julli moom amul problème yàlla wàcceel na la ko koor moom joxeel ndogu amul problème diw moo ñu ko wàcceel yooyu ma ni yeggul fee te balaa ngay xam ne yeggul fee nga faatu dama mus a feebar chaque jour ma wax ko ci waxtaan yi ñu hôpitalisé ma ci benn hôpital ma tëdd ba guddi ci bëccëg yi ñu indi kenn ñu teg ko sunu wet ñu samp ko ay butéel guddi jot rek waa ji di sukuraat man dama doon nelaw sukuraat waa ji moo ma yee damaa jékki-jékki rek ci biir nelaw yi ma xoole ma dégg waa ji naan kar xar fii put gi mooy résonné ci saal bi ba ñëpp tiit su nee xar ne ko këng nga dégg mairie ne laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ñëpp tiit ñi fanaanoon ak malade yi malade yi ñëpp a tiit am na benn waay sax moom ndeysaan mi ne waa ji gaañu na ci fajar gi la dafa feebar de la dindi affaire bi teppit teg jël bagage am anawaa wallahi alazim gëm ngaa ñëw
wallahi alazim waa ji dafa ñibbi te wérut lu tax ndax li mu dégg li mu gis waa ji kar kar kar ba caag rek benn meer ne ay waay may leen ko ndox may leen ko ndox jabar ji jóg ak ay jooy dem ut ndox indi ndeysaan ñu daal di teg kopp bi ci gémmiñ gi jàll nga di affaire naan oqul di def ni ë ë ë am lu jàll am lu génn ñu defaat mu jékki-jékki ne kër benn yoon lu nekkee ruu gi dem na deena bu yàgg rek jabar ji falaxe saal bi saleeru bërëngu daay ñu téye ko hôpital bi keroog kenn mënatu la nelaw ñépp a yeew ba bët set ndax ndaw si ni mu ni mu salleeroo ci hôpital bi ñu ko jàpp ci loxoom di ko génne hôpital bi muy yuuxu ba porte ba ñu nekk ci saal yi di ko dégg waa ji ñu daal di koy jël dugal ko salle de salle salle de mort ma tane ma ñibbi sama kër ay fan ma gën a tane ma dem sama école ma ñëw fekk école bi ubbi na gars yi ñu ngi doon inscrire di jàng am benn parent d'élève bu ñëw mu ne man de maa ngi jégglu ndax yéex naa inscrire ndax dama amoon benn mbokk dafa feebare woon dëkk sangam ñu indi ko hôpital mu wax hôpital bi ma nekkoon mu ne après mu daal di fay gaañu après yóbbu nañ ko dëkk sangam sax nangam ak nangam commencé ma ne ko ban hôpital la hôpitalisé woon mu ne ma hôpital sangam ma ne ko ban saal mu wax saal bi ma nekkoon ma ne ko kañ la loolu mu wax ban heure mu wax ma ne ko waaw yow kooku lu ngeen bokk mu ne kooku sama mag la ñoo bokk ndeeg baay dafa bàyyi woon fi ndeyam ak baayam gedd leen dem ñibbil sëriñam bi mu demee foofu liggéey ba feebar mënatul dara mu dellool sil ñu ko gis nga de mu dellool sil ñu ko ñu jël ko ndeke waa ji dafa jabet ñu jël ko yóbbu ko hôpital nekkee ku jabet kenn du ko defal précision déedéet prévision ñoom nag ñu defal ko ko
jabet jabet jabar kenn du ko defal loolu précision rek mu ne ndeysaan moo tax ku feebar boo demee léegi dañ lay defal test waxoon ndax da ngaa jabet wala jabetu boobu gaa yi xamaguñu ndeke waa ji dafa jabet ndeysaan waa ji daal di dee xam nga lan moo ma njëkk a lan moo ma njëkk a tourné sama xel mi ci waa ji mooy bi ma waajee bi ma laajee ndaw si ma ne ko waaw kooku moom lan moo doon mbiram mu ne ma kooku kooku de daa bàyyi woon julli daawul julli ndax loolu lañ ko sant sama xel dem ci ma salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin moo tax waa ji sukuraat sukuraat boo xam ne allahu akbar hôpital bi ñëpp a yeewu hôpital bi ñëpp a tiit ndeke lan la ndeke waa ji daawul julli waaye man egguma ak moom foofu dama ko posé question yi rek mu daal di dem ma xam li ma xam daal di noppi léegi nag waa ji ñu suuli ko ba ñëw kilifa gi daal dem indi ngandu nag indi saako ceeb saako suukar gars yi ne ko du fii fii doo ko fi dëje jëlal ndax ba mu feebaree fajoo ko woon daa feebar nga delloosi ko nga bàyyi ba mu dee nga indi nag ak ceeb ak suukar jëlal acca ñooñu moom sax am nañ fulla gis nga bu ñu ñàkkoon fulla foofu la ñuy nekk rey nag bi di toog di noos ci seen mbokk moo xam ne daa dee toroxal nañ ko ba mu dee waa ji ñëwaat di noos Sénégal Sénégal noonu la ñuy def di boo feebaree boo feebaree kenn du la faale day ko gis koo xam ne sax paracetamol rek faj na ko paracetamol ñaata lay jar juróom
tablette bi ñaata la 100 francs gars yi duñ la ko jëndal dañuy bàyyi ba nga dee ñu ñëw di cotiser indi benn carnet Ismaïla Diop 10 000 Mor Diop 10 000 Assane Diop 10 000 Kumba Diop 5 000 Ndeye Diop 5 000 ñu dajale ko ba mu nekk 500 000 ñu jël 300 000 yi ñu ne dem leen ngeen jënd nag bu ngand caméra yi nag waaw jërëjëf caméra wuy leen góor gi nee na day am ay caméra waaw dëj bu ñuy def caméra ak ay canette waaw 500000 yi dañ koy xaaj 200000 yi ñu ne jënd leen ngandu nag li ngeen jënd ceeb li ngeen jënd dëwlin li ngeen jënd ay canette ngeen jënd glace ah ndeysaan ngeen jënd warga jënd suukar ah gars yi ñëw nag toog dajale baas yi waaw waykat yi ñëw nag o kammaayi naggal warama ngare a ñaamen sen kaari kooten ah tuku tukulóor yi way lool de tukulóor yi laa wax ñoo koy way waaw
tukulóor yi ñooy way loolu o kammaayi mooy kii deena naggal warama mu ne rey nañ nag ngare a ñaamen kaa leen ñu lekk seen kaari kooten bu ñu suuree ñu ñibbi bu ñu suuree ñibbi waaw o kammaayi naggal soodama ngare ha ñaamen sen kaari kooten wona ko ɗum jima toon waaw wala wona noon jimir toon ɗum allahu akbar ay sénégal ñomuna fo allahu akbar la ilaha illallah innama tuadun ñu ne ah yàlla mu ne la aat day ñëw de te nag maa ngi leen di yëgal de nee naa leen li ma wax day am te wama antum déet yéen bi mu ujisi na ngeen di rëcc kenn seen du rëcc Hum. lii texte la sans commentaire ana ñu jàng français waaye ñu liiral ma ko ana ana kaamil yi traduire français ana mu aca liiral ci kaw ñu dégg ko ñu xam ne lii du sama wax kese waaw ce qui doit être promis arrivera certainement.
ah Vous n'êtes pas à même de revenir en l'impuissance.
allahu akbar wama antum bi mu'jizin yàlla ne ne li ma wax day am te kenn seen du rëcc lii kay jar nañu jaamu yàlla wama antum bi mu'jizin allahu akbar kenn seen du ma raw lii bu ñu ko déggee gars yi lan woon war jaamu ji te ñoo delloo suñu xel yàlla te ñoo góorgóorlu mbër moo xam ne da ngay bëre ak moom te moo la mën te ngaa combine bërë bi rek bu ñëwee bu ñu ne prix rek nga daal di toog na ko yaa ma mën jaru sax ngay léewtoo naan nii suñ ne prix rek toogal buñ ma boolee Yékini de bu ma yeggee damay daanu rek ma damay daanu daanu wuy leen góor gi nee na buñ ko booleeg Yékini moom xam ne moom xam ne ne day daanu day yëg rek daal di toog lal ba sangam toog waaw ndax xam na ne moo ko ko mën kon nag yàllaa nu mën jeex na benn waaye benn mbër dafa ñëw ci sëriñam ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma mbër mu ma dajal ne ko ndul ci suuf mu ubbi fenêtre bi ne ko xoolal fii mu xool gis armeel yi mu ne ko boo dajee kii tëral nit ñi fii nag mbër mi ne teg mu ne ko demal nga jaamu ji yàlla buñ defoon noonu suñu mbër yi ñëpp jaamu ji yàlla waaw ñaanal ma rek ku ma jàpp ne ko rul ci suuf mu ne ko ah bon mu ne waaw mu ubbi fenêtre bi ne ko xoolal mu xool gis armeel yi mu ne ko mbër mi daaneel ñii ñëpp boo dajee ak moom nag mbër mi daan ñi ñëpp bis boo dajeek moom nag mbër mi na teg mu ne ko jaamu jël yàlla te bàyyi caaxaan loolooy dëgg gars yi mos ngeen dem ci armeel ku mos a dem fi ci armeel ne yëkkati loxoom boo fa demee na dox bi dafa romb armeel yi kangaadoo o wirti bamule de o wi ñaw dagde waɗi on deƴƴiide o wi ɗo kuljinoɓe nan ɗo awluɓe nan ɗo noddinoɓe nan ɗo on deƴƴiide ko deƴƴini on
dana xoolaat de Ah, dof bi daa romb armeel yi su toogloo ñooñu mu ne ñaw noppi ngeen de ana ñu doon noddu ana ñu doon saraxoolle ana woykat yi noppi ngeen de lu tax ngeen noppi saraxoolle mooy loolu mooy saraxoolle waaw loolooy saraxoolle mu ne ñaw noppi ngeen de mu ne waaw ku leen noppiloo nag ku leen noppiloo kon nag mbokki julit yi yàlla nee na wa ma antum bi mujizin kenn du rëcc allahu akbar kenn qul waxal yaa qawmi yéen samay nit imalu jëf leen gis ngeen kon nag maadaama yàlla nee na li mu wax day ñëw te kenn ceen du rëcc kon yow sayyiduna muhammad waxal ak gars yi nañ liggéey nañ jëf imalu jëf leen ala makanatikum ci seen place yi ngeen nekk inni man sayyiduna muhammad amil maa ngi jëf lii mooy dëgg soo wooy soo wooyee taalibe yi da nga leen war a wax gis nga man jàkka laay jullee maa ngi nii di julli maa ngi nii di jàng alxuraan maa ngi nii di woor maa ngi nii di jaamu yàlla loolu nga leen war a wax waaye gars yi bu ñu wooyee taalibe yi lu ñuy wax fii ku fi teew sa aajo faju na ndeysaan benn sëriñ dañ ko ne waaw ñun dañuy gis taalibe yi ñoom buñ ñëwee fii ñoom mbirum àdduna rek la ñuy wax duñu wax mbirum alaxira taalibe bu ñu ñëwee fii damaa bëgg a tukki passeport laa bëgg damaa bëgg liggéey damaa bëgg nangam damaa bëgg ñoom lu tax taalibe yi loolu rek la ñuy wax mu ne alaxira lijjanti nañ ko ba pare foofu dañuy ñëw rek dugg dañuy ñëw rek ubbi buntu yi ñëpp dugg àjjana moo tax alaxira bi lijjanti nañ ko allahu akbar wala naxaate yooyu alaxira booy lijjanti xam nga amoo alaxira fu mu nekk ku xam alaxira fu mu nekk dëkk booy dem kay di tukki day fekk nga xam ko wala ñu tegtal la fa wala nga miin fa wala am ko fa mos a dem jóge fa ñëw di la ko nettali kan moo mos a dem alaxira ñëwaat waaw waa ji daa accidenté deux chevaux moo ko mbëkk deux chevaux xam ngeen deux chevaux amati na amatul deux chevaux moo ko ne rër rek mu xam ñu yóbbu ko hôpital principal ba mu ximmili ko ay booru 6 heures mu ximmili ko fi mu tëdd ci lal bi mu gis hôpital bi lépp weex darab yi weex lal yi weex miir yi weex mu gis malade yi ñu sàng leen darab yu weex mu gis docteur yi sol ay blouse yu weex malade bi de mu daal di jóg toog mu dox ba ci benn docteur ne ko ana waa kër ngóor ana waa kër sëñ ngóor mu ne ko luy waa kër sëñ ngóor mu ne ah fii du alaxira mu ne ko moo fii di principal moom da yaakaar ne alaxira la nekk muy laaj ci ana waa kër diw alaxira nga defe ne nit dina dekk biir ba mel ne ana waa kër diw ana waa kër ngóor mu ne ko looy loolu luy loolu mu ne ko ah fii fan la mu ne ko fii principal la mu ne ko dama yaakaaroon ne alaxira la may laaj ci waa kër diw allahu akbar gaa yi kaay leen ñu jaamu yàlla ah qul yaa qawmi e yéen nit ñi yéen samay nit i'malu jëf leen ala makanatikum ci seeni barab ya ca seeni place ya ala ma antum mutamakkinina minhu min haali saaliha aw il fasad jaamu leen yàlla ca la ngeen nekk ngeen jàpp ne moo baax ngeen def ko ngeen jàpp ne moo bon ngeen bàyyi waaw ngeen ba ko waaye nekk fi naan ëllëg bu ñu deewee diwa nga fa diw jiitu nañu moom mooy ñëw ubbi buntu yi diw dañuy ran nangam nangam dañuy ñëw ah allahu akbar dañuy ñëw rek ñu ne ñun ñooy waa kër diw malaaka bi daal di ubbi ñu daal di dugg toog jël suñuy caabi daal di dugg suñuy appartement toog mel ne mel ne mel ne ñuy toxu wallaay yomb na yomb na lool xam ngeen luy dëgg mooy lekkal ma du sotti naanal ma du sotti nelawal ma du sotti su nit ñi di lekk teg boolub ceeb nga tibb ngandum dànk nga teg sa doq doo yëg ne saf na loo yëg tàng na waaw su nit ñi di lekk lekkal bu nit ñi di naan naanal bu nit ñi di nelaw nelawal waaye bu nit ñi di jaamu yàlla jógal jaamu ji yàlla waaye nit ñi di jaamu yàlla nga tëdd naan man yegg naa damaa yegg waaw yegg naa man damaa yegg ba ñu wàcceel ma ko waaw bu yegg doon yegg Seydina Muhammad yegg jaamu na yàlla lu ko yeggloo wala jaamu ko dem na ba yegg sax de ànd naag Jibril ba yegg ca borom bi mu dellusiwaat di jaamu yàlla yegg na de sallallahu alayhi wa sallam dem na ba Jibril mënatul dem ne Jibril Jibril ne ko fii laa yem mu ne ko nu may def mu ne ko yéegal ci ascenseur yi bële mu yóbbu la ci sa borom dem ba jàkkaarloog borom bi naan ko attahiyaatu lillah atayibaatu salawaatu lillah yàlla ne ko assalaamu aleyk ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñëwaloon foofu assam garde yi malaaka yi escorte bi ñooñu ne assalaamu aleyna ni ñun ci lañ bokk de assalaamu aleyna wa ala ibadallahi salihin yonent bi bàkk yam doon bàkk yàlla moom lañ dugal ci julli attahiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah wala attahiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah nuyoo yi la nuyoo yàlla bi mu demee kaw asamaan nuyoo yooyu la yonent bi doon nuyoo yàlla ba mu demee asamaan yàlla ne ko assalaamu aleyk jàmm yàlla na nekk ci yow ayyuhan nabiyyu yow sama yonent allahu akbar yonent bi du morom ah wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu aleyk allahu akbar kan moo ko wax loolu yàlla adresse loolu sayyidina muhammad assalaamu aleyk kan ayyuha nabiyu yow sama yonent wa rahmatullahi ak sama yërmande man yàlla wa barakaatu ak sama barke yàlla na nekk ci yow yow muhammad kooku kooku du ñun de yàlla xool ko ne ko wadduha wal leyli isa saja ma waddaaka rabbuka wa ma qala te kat pour nga gëm loolu wala al axiratu xayrun laka min al ula te suñ fa yeggee wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda dinaa la jox ba nga kontaan kooku kan lañ ko wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaa yi di ko bëgg a def ay moroom ku jóg rek ku jóg rek bëgg a siiw rek di ko attaqué ku jóg bëgg ñu dégg la rek foog nga wax dara ci yonent bi maa ngi fi ay vidéo benn waay naan benn waay naan yonent bi kooku ñu naan Mohamed bu gisee yàlla na ko sante diwan diw moo tax mu gis yàlla bu diw taxul woon du gis yàlla te sax benn yoon boobu la gis yàlla après diw daal di nëbb yàlla léegi mu yonent bi mënatu cee jot ndeysaan ah ndeke loolu am na Sénégal loolu am na Sénégal ndeke allahu akbar ay waay Sénégal waaye ndeysaan keneen ne waaw boobu maa ngi ak moom moo ngi ni mu ne sëñ bi moo sàkk yàlla te ne ko bu ma ci feeñ nag sëñ bee sàkk yàlla te ne ko bu ma ci feeñ waaw moo ko sàkk ñu naan sëñ bee yàlla sëñ bi du yàlla dafa sàkk yàlla waaw ñi naan sëñ bi yàlla la dañoo juum sëñ bi moo sàkk yàlla allahu akbar maa ngi jéggalu sama borom li ma ko nettaliwaat bu Sénégal yemee ci ay lakk ak ay accident ak ay ngelaw ak ay jinni ak ay sant leen yàlla fii yàlla dafa doon këpp asamaan bi bu yàgg suñ kaw billaahi fii yàlla dafa doon yónni jibril bu yàgg mu ñëw dëpparti suuf si rek carte Sénégal bi la naan jëppër rek yóbbu ko kaw asmaan dëppandi ko na mu defoon xaw mu luut ndax wax yi ñuy wax fii waaw wax yu ñàng yoo xam ne kenn mun la ko nettali ay nit taxaw di ko wax ci dëkk bi di ko envoyé whatsapp di ko envoyé ay image imo di ko dugal facebook ñëpp di ko gis di ko dégg gars yi di ko partagé nga dégg ñu naan alxuraan ni mu gënee silaabeer noonu la téere sàngam gëne alxuraan kenn ki ne yàlla dafa yónni yonent bi ne ko tànnal yonent bi ñëw ci yéeféer yi tànn ay jullit yonent bi ci yéeféer yi la ñëw tànn jullit sëñ bi yàlla yónni ko mu ñëw ci jullit yi tànn ñoom diw kon ñun ñun ñoo gën jullit yi jun duñu ay jullit ñu nangam lañu dégg nga de kon yonent bi ko yàlla yónnee dafa ñëw ci yéeféer yi tànn ay jullit diw moom bi ko yàlla yónnee dafa ñëw ci jullit ñi tànn ay allahu akbar ah keneen ki ne déedéet yàlla dafa wàcc par asamaan guddi takk ndiggam daa di romb diw diw topp ko topp ko topp ko ba mu egg ci kër sëriñ bi yàlla dugg dugg ca wanag wa nee na ma ñëw fekk sëriñ bi toog ma ne ko ana ki jaar nii mu ne mu ngi ci wanag wi di liggéey mu ne ma ñëw fekk ko mu takk kaalaam di rato mu ne ko ah yow yàlla ndeke bu guddee da ngay wàcc asamaan ñëw fii di liggéeyal sëñ bi ba pare naan yaay yàlla di nax nit ñi lii ma leen di nettali yëpp mu ngi ci seen at portable yi yéen ñëpp gis ngeen ko mu ngi seen portable yi dégg ngeen ko aussi yéen ñëpp partagé ngeen ko ba sonn waaw loolu mooy diine waaw loolu moom beneen kilifaa ko wax ëllëg ëllëg bu yàlla taxawee nii yonent bi taxawee nii diw taxaw nii ma romb leen romb yàlla romb yonent bi dem ci diw gars yi yow ñu ne aalu na aalu na dafa aalu gars yi di yuux non jaru ko jaru ko bul bul dafa yi fayal bàyyi rek bàyyi leen noonu rek yow fari bëri na fi moom dëkk bi yëpp moom la waaw dëkk bi yëpp moom la arrêté ko arrêté ko dëkk bi yëpp moom la WhatsApp imo port lépp lépp mu ngi fi te fu du jeex waaye xam ngeen ne lu am importance mooy ku am xel ku muus mooy ku jaamu yàlla dégg ngeen ku am xel ku muus mooy ku jaamu yàlla bàyyi caaxaani mbokk yi mbokk yi jaamu yàlla jot na de jaamu yàlla jot na de muus jot na xelu jot na yeewu jot na waaw jot na jot na bu yàgg jot na bu yàgg nelaw yi ëpp na borom bi nee na fa sawfa taalamuuna di ngeen xam nee na jëf leen man yonent bi de maa ngi jëf ku jëful fa sawfa taalamuuna di ngeen xam kan la kan la alxuraan di adressé wax yi fa sawfa taalamuun di ngeen xam lan man takuunu lahu aqibatu daar buñ demee ba àllaaxira yàlla neen di ngeen xam kan moom moom àllaaxira fekkee da ngeen yaakaar ne am na ñu moom àllaaxira wala am na ñu fa nekk ñoo xam ne dañuy ñëw rek daal di may poñe puus ma nee rek daal di jël nit ñi dugal àjjana ba ëllëg waaw man takunu lahu aqibatu daar fa sa taalamuna di ngeen xam man ana kan takunu lahu dana ko ñeel aqibatu daar mujjantalu kër googu tudd këru àllaaxira buñ fa yeggee ah a daaru dunya këru àdduna wa hiya saadatul axira te mooy texeg al'axira alqaima ala al imani wal amalu salih allahu akbar teraanga bi doomu aadama di am ci àdduna ba àddunaam baax ëllëg al'axira mu dajeeg yàlla yàlla dugal ko aljanna buñ fa yeggee yàlla nee na di ngeen xam foofu kan moo ko moom waaw ndeysaan tey bokk na ci tax mënuñoo jaamu yàlla mooy nax yi ñu nax nit ñi gëmloo leen ne al'axira dara amu fa waaw alaxira ñoom diw ñoo jël nañ lépp alaxira diw jël na lépp ku àndul ak moom da ngay perte gars yi sax dañ koy way ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj gars yi di fecc rëgin sabari di dal ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj rëgin ba fajar loolu rek mooy way yi di fecc di gars yi ron def benn ron ron depuis 10 heures ci guddi de di tourner di tourner loolu rek la ñuy way nag xoolal ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj rëgin ba kañ ba ban heure ba asalaatu xayru minan nawmi ñëpp ñibbi allahu akbar loolu kese mooy diine bi kat tux yàmbaa ba salleeru naan ba dootoo xàmmee ah góor ak jigéen di fecc di fecc di fecc ba bët set waaw maa ngi ak sama portable bi bii nii anamu waa joo xam ne fecc yi muy fecc waa ji waa ji benn waay nee na ma kii moo neex tànk te paala de wax naa leen ko démb waa ji daa fecc ba pare di defar kaala gi defar kaala gi defaraat kaala gi man ko déedéet yow kay deeru defaraat kaala kaala kay kilifa lañ ci doon xam kilifa waaye kilifa gu fecc ba pare di defaraat kaala nag naan nii di def ko defaraat ñu ko di waa ji nee na ma kii moo neex tànk ba pare waa ji ni muy feccee rek ànd ak ànd ak non subhanallah te paala de magum jëm ay Sénégal a neex diina jëpp fecc la ak lekk fo ak lekk yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك mbokk yi sunu boroom nee na ëllëg ñun ñëpp danañ xam kër googu di këru teraanga ana kan moo fay mujjee dugg wallahi wallahi allahu akbar wallahi allahu akbar mën nañu yàlla taxaw waaye li yëpp li ko waral rek wala waa ji diir waaj lii diine la lii ah lii li mooy diine ah xool ko nag te fecc bare day defaraat kaara xool lii diine la lii ah lii lii ban diine la lii lii mooy islaam lii astagfirullah lii mooy islaam lii non dañuy fa rek dañ lañu yàlla wan dëgg sunu borom nee na innahu li wër tey mbir laa yuflihu du texe azzalimuna tooñkat bàyyi leen xel aaya bi borom téere yi nee nañ su ngeen jàngee alxuraan bàyyi leen aaya yi fu muy jeexee aaya bi fan la jeexee sunu borom nee na tooñkat yi du ñu texe kuy tooñ doo texe innahu li wër tey mbir laa yuflihu du texe mukk azzalimuna tooñkat kuy tooñ fooy mujje du baax tooñ baaxul waroo nekk ak nit ñi rek jaay leen ëpp leen doole di leen tooñ di leen noggatu ah di leen liggéeyloo doo leen fay di leen jaay doole lekk seen i salaire jël ay avocat neexale ko daal toog di leen xool wala jëm tëj leen ëpp nit ay doole dem tëj ko ba pare ñëwaat toog naan ko maa la mën dinaa la dóor te sama loxo du la laal ah looloo xew tey ci àddina bi yow dinaa la dóor te sama loxo du la laal dem jël nit ki dénkaane ko ñëw jàpp si jàpp si jàpp si njàmbur tooñ baaxul de wallahi yow mi tooñ yaakaar ne da nga am doole yàlla la ëpp doole ah te yàlla tooñu la borom bi nee na inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazaalamu man yàlla maa leen ëpp doole te tooñu ma leen kon bu leen tooñ man yàlla aramal naa tooñ sama kaw kon bu leen tooñ kenn kon mbokk yi aaya baa ngoog suñu borom nee na iyaakum mooy tandiku yonent bi nee na iyaakum wattandiku leen wa zulma ak tooñ fa inna zulma zulumaatun yowmal qiyaam la tooñ ay lëndëm la ëllëg yowmal qiyaam kon darsu tey bi fii la jeexee noo ngi ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu dajale waan ñu fi déwén amin normalement tafsir bi tey la yem ci bëccëg